asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk julli ji tel yi fi teew bokk taalib yi ci ndigalul cheikh mouhamadou muntaxa mi fi jëmbi sëriñ tuba tey di ñaan mu yàgg ci lool te ànd wér ba mboolem naa li rëy yi nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ tuba suñu borom mooy ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee ci barkeb sëriñ tuba mu yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yi cant ak ngërëm jëme ko ci waa daaira Touba ca kanam ci jëwriñ gi sëriñ sëriñ Abibu Mbàkke Cheikh Mouhamadou Fadil li ma ko seereeloon rek keroog bi ñuy tàmbali liggéey dëkk bi loolu rek mooy li ma ci seerewaat ndax loolu rek mooy li xam ci moom yitte taxawaay bëgg sëriñ Tuubaa ak jël lépp mu jox ko sëriñ bi te boolewul ci dara kon nag liggéey bii nga xam ne moo nekk seen jëwriñ ci kanam ñu ngi koy ñaan ci barke sëriñ bi ni ko ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di seeree suñu borom gën koo dolli kàttan tëbb ko wër ba fa bëgg yóbbu liggéey ba mu àgg fa mboolo mboolem ñu ko seq ñëpp bu ñu tuddee sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Habib ñëpp xam nañ li mu doon ci ñun ndax dama ko daa tooñ naa ko yaay waalitul xadra bu yàgg mm-hmm. yàgg na la ëpp lu ñaar fukki at mm-hmm. ndax moom ñi suñ digg ak moom ëpp na fanweeri fanweeri at nag koo génn ci ñu dund kon loolu mu wax rek ñu itam mën nañ koo seere mm-hmm. waaye moom itam li ma mas a xam ci moom mooy bokk na ci sëriñ bi te mas def lu naqari yàlla te loolu yombut te ku bëgg Serigne Touba la itam. ba nga xam ne ba léegi mosuma xam lu soppi ci moom. loolu dafa doon ci wàññi. kon moom itam seen taxawaay bii ni mu ànd ak Cheikh moom seen seen yëngu. boole leen ba seen sax duggante ci biir. loolu tànn Serigne Touba kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax. sumb yu rëy yi ngeen sumb ci liggéey sëñ Tuubaa ci dëkk bi mm-hmm. te sëñ bi dëkk bi rek a ko ittee la mm-hmm. yàlla leen ci gën a gindi defal leen ci tawfeex ba fa ngeen ko bëgg a yóbbu nga ko Cheikh Maodo Mountakha daal seere ne mm-hmm. yaakaar ji am ci liggéey bi yàlla na fa àgg mboolem ñu ci dugal seen alal ak ñi ko ànd ak yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal de sëñ Tuubaa daali woon ci waqti xawaa ijal si na daamoo fii xidmati wa hab lahum ma yàlla ngeen tàbbi ci bi may ñëw nag ma Mamadou Mountakha mi ngi ma jox ndigal mu ànd ak Serigne Abdoul Ahad mi nga xam mooy maire dëkk bi loolu nag Serigne bu ngeen gisee mu def ko ab junj la ci junj mooy xam ne liggéey bi lenn li maire bi yor ak li daayira Touba ci kanam yor lépp alal moo tax mu bëgg liggéey lépp gën a nosu gën a nekk wenn say ngir fañ jëm ak bëgg fa àggal dëkk bu mu àgg kon ñu ngi nuyu bokk taalibe yi fi tey yëpp di leen ñaanalaat ci yitte jure ji ngeen xam ne da di dàkk rek lu ngeen yaakaar bëgg Sëriñ Tuubaa ngeen njëkkante kon la sëriñ bi daa wax saabixu ilaa maxfirati min rabbikum ak saari'u loolu Sëriñ Tuubaa néew na fu mu tàggoon nit ñi te kon na ngeen xam ne wa fi zalika falyatanafasi mutanafisun yéen nag ci loolu ngeen nekk te mooy lépp lu ngeen gis muy lu baax rek ngeen tax ba kenn biñ leen cee jiitu kon nag yoon yi ngeen dëgmal te jëm ci sëriñ bi yàlla ngeen ci àgg te gëm naa de da ngeen ci àgg ndax la li ñuy wax la fudda fuuka am na loo xam ne boo ko waxee da ngay catu nit waaye yoon wi ngeen teg gëm nañu Sëriñ mooy teg loxo ci yéen ndax kat laa taqnatoo min rahmatillah waaye nag Sëriñ Tuubaa dafa wax ne la ta'munu makaa'ida sheytaani qabla firaaqi ruuhi wal abdan bu leen naagu mukk ci pexe seytaan waaye nag inna naa laysa laka alayhim sultaan moo dalal suñu xel ci yéen moo gëm ne sëriñ bi dana ko mën bu àgg kon ñi ngi rafetlu jotaay bi rawat na fii ngeen ko jëme muy ci alxuraan te Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne pàggutee fa mooy alxuraan ndax nee na ba ma xamee ne moo bàyyi ko ci yàlla jëmaat ci moom te jarul fenn moo tax ma def muy sama pàggutee kon képp kuy dàkk Sëriñ Tuubaa te dàkkee ko ci alxuraan na la wóoree dàkk nga ko màggal Tuubaa gii ñuy wax kat ba mu ko njëkkee woote wala ci taarix ni ñu ko xamee gàtt ba mu ci njëkk rey ba mu noppee dane nañ ko séddale saw waa ñu jaawal ko jox ko bokk yi yi a jege boo ko sëriñ bi déggee daa wax ne waa daayri kaamil ñoo ma tax wax fu ngeen déggee ti ma ne sama sama ñoom sama waa kër ñoo ma tax wax waa daayri kaamil ji ngeen di déggee hmm. kon sëriñ Touba diggam ak alxuraan wax naa ko fii démb ci ndajam daayiratu rawdu rayaxiin li sëriñ Touba wax ne mallakanil xuraanu tam lii kan ya doom li ko firndeel bari hmm. dëkk bii li fay mokkal ci alxuraan amul fenn ci àdduna fenn fenn foo ko mën a kon loolu misaal mu gàtt la ci suñu borom kon nag alhamdulilahi rabbil alamin bi leen yàlla defalee tawfeex ngeen jug di tàkk sëriñ bi di soññ ñi nga xam ne ñooy yëngu di ci wàllu alxuraan ñu gën ñu gën a góorgóorlu ndax ñi ne ci àdduna kat ñu koy def kon yéen kenn wut leen caa jiitu hmm. ngir xam ne yaa banii aadama xusoo zinatakum inda kulli masjid hmm. kon ki nekk ci lu baax di jàngale alxuraan war naa fexe ba waris naa fexe ba góorgóorlu ba ñëw ku leen gis leen ñeen waaye ni adduna doxe kat ku leen gis yërëm leen loolu kat nit ñi war ñoo ci war a xoolaat seen bopp bi ngeen def tàmbali ko nag ak yoon lu jëm ci loolu kon nag yàlla yàgg ak suñu Tuubaa gën leen ci dimbali di santaat yàlla bu baax nag di yéemaat seen Tuubaa ndax fi ñu toog di waxtaan tey barabu histoire la ndax ñu ci Daarul Manaan Daarul Manaan bi Sëriñ Tuubaa bàyyi ko ci géej gi war a dem Mauritanie ngir mottali ji ab liggéeyam ba mu wàccee Daaru Salaam fii la ñëw sancale woon ko ak Cheikh Ibrahima Fall jëwriñam xam ngeen la ca xewoon ci histoire bañ kalaamee sëriñ bi ak tubaab bi wax ne day dajale ay jihaad te fekk lal yi nga xam ne Cheikh Ibra moo ko jëndaloon sëriñ Tuubaa andi ko ñu ñu ñu wax tubaab yi jël ay ay ay ngànnaay ci nekk bañ ñëw di wisit si kër gi Daaru Manaan jëloon kon nag bu yàlla defaatee tawféex bañ jublu màggal Tuubaa muy bis ba nga xam ne cër bi Sëriñ Tuubaa njëkkoon bàyyi ñëwaat fekk fi saal bu toll nii ca benn taalibu Sëriñ Tuubaa di Sëriñ Cheikh Issa Diène di Sëriñ Siid Diène tabax ko moo ko mbooloom wala sañ see yéemaat suñu xeddal te dolli suñu pëstéef ak suñu yaqin suñu dégg ak Sëriñ Tuubaa ngir xam ne yoonu Sëriñ Tuubaa li ñu ci war mooy dëggal ak pëstéef ak bañ a rax sëñ bi ak bañ koo jaawale waaye la ci lépp ci loxo sëñ Tuubaa ne hmm. ndax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kat waxoon na ne liggéey sëñ Tuubaa yomb na ndax day féetoo coono bàyyi la sëñ hmm. kon war nañu góorgóorlu bu baax te xam ne sëriñ Tuubaa kat li mat a fàggu lépp fàggu hmm. te waxoon na sëriñ am satu jaxat ne am satu sama dëkk bii sama xasida yi sama yoon bii sama dëkk bi doon lu mu ci kenn dara kon ñun ñëpp nañ xam ne dañoo nekk ci biir ñaan gu nangu dañoo nekk ci biir aaj du faju kon nañ sant yàlla bu baax te da gën a delloo suy lépp Sëñ Tuubaa te dox jëm ci moom buñ ko defee danañu gàttale ci àdduna te fañ bëgg ëllëg danañu fa yóbbu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa